Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. salaam ma la ngir yàlla ma yaa si waaw jeex na salaam ma la ko ma yaa si yàlla laa yaakaar dama jeex na xamu ma la jeex na man dama laa faale jeex na ku dul yow sam di diggu ma ko mu leer na tay nga xam ko yow yow nag doo di ko bàyyi ba ba nga tëggee ba léegi lu métti rek laa dig ma jaw lépp ma xam ko toog na bi jeex na lu ma lima laa la ma fi sama jàmm yaa si ma laa faale ma fi sama jàmm di ma lima faale ma la jeex na jeex na ma yaa si yow tamit bàyyi mu jeex ngir yàlla ben gidiyorum. Sax Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. pour recevoir nos informations à temps réel.